Falilou bu Cheikh Mamadou Fadal nekk ci kuréelu fédération Makarimal Akhlaq nangu ndigal te jëwriñ Xaadim Ndaw jiite ko du sunu jëwriñ ci buntub sëriñ Touba ci keppaarub Cheikh Abdou Karim Mbacké falilu muy sunu yaakaar moom ñu koy ñaana mu yàgg fi loolu te ko wér ndax ñun kat yoonu Serigne Touba buñ demee ba am ci dara wala ñu dem ba ba miin ci dara di ci def dara jëwriñ Xaadim Ndaw la jëwriñ xaalim ndaw doon koo xam ne dañoo tettee nampatal ñu wommat ñu gindi ñu ci sëriñ bi ban bëgg sëriñ bi ñu koy ñaanal nag mu yàgg fi lool te ànd ko wér ak bépp jëwriñ bu aju ci fédération Makarimal Akhlaq nangu ndigal añi ajuma yi moom ñu ngi ko tàmbalee ci jëw ndigalu jëwriñ xaalim ndaw mu jox ñu ci ndigal daan ne añ yi nag damaa bëgg añi nga xamante ni soxna gayal gay daka daan toggee Ndakaar di ko yeb ci saxaar gi di ko indi sëñ Fallou ci jumaa ji loolu laa bëgg ñu yeesalaat ko di ko toggee fii ci dindi di ko joxaat si bi kër yi loolu ci diggalu jëwriñ Xaadim Ndaw ñu tàmbalee woon ko ñaari mbana moom nag fi mu toll nii dañoo joxaat ndigal ba fi mu toll ñu ngi ci juróomi mbana ndax moo ñu jox ndigal nañu def liñ juróomi mbana te ci kattanu yàlla liñ mébétam moom jëwriñ Xaadim Ndaw moo ñu dem ba am togg baytaal fanweeri mbana ndax dañ daan def benn gàtt léegi def nañ bay def ñetti gàtt ci ndigalu jëwriñ Xaadim Ndaw mi nga xamante ni moo jiite fédération Makarimal Axlaaq nangu ndigal ñu ànd kook moom mu ci mu ciy soññ bépp jëwriñ bu aju ci biir fédération bi rawatina bépp jëwriñ boo xamante ni yaa ngi ci biir fédération Makarimal Axlaaq nangu ndigal jëwriñ Xaadim Ndaw di la ci soññ di la wax ne añi ajjuma yi moom ajjuma ji jot jëwriñ da koy waajal di ko ànd sëriñ bi sëriñ bi di ko bàyyi xel suba teel le sëriñ bi di xëy naan ko Xaadim naka ajjuma ji tey mu ne ko Mbàkke ña nga ca nga xam ne kon liggéey bi liggéey bu sëriñ bi bàyyi xel la moo tax it jëwriñ xaaj ndaw bay mu ngi ci soññ bépp jëwriñ dañuy faral di def kuréel gu ko ayee tey ajjuma ji bu jeneen ajjuma ñëwee beneen kuréel moo koy ayee dañuy dem ba waa Angleterre dañ koy togg waa France dañ koy togg waa Italie dañ koy togg ñoom ëboo Angleterre ay ñoom Bachirou ay ñoom Xaadim Ndiaye ay ñoom Maxari ñoom ñëpp ñu ngi bitim réew te añ yi day dem ba foofu ñu koy togg waa Dakar dañ koy togg fépp foo xamante ni nag fédération am na fa muy nangu ndigal da nga bokk ci membre yi nangu ndigal yi añ day ñëw ba foofu nga togg ko ajjuma ji tey nag ñuy wax ni la ñaar fukki fan ci juróom ci weer wi tey moom jaayante la tay jëwriñ jëwriñ yee ko aye jëwriñ yi tuubaa yi féete Touba ñoo aye añi tey ci ndigalu jëwriñ Xaadim Ndaw te jëwriñ Xaadim Ndaw nag di ci soññ bépp jëwriñ ak bépp membre waaw loolu moom doon na loo xam ne lu jëwriñ bàyyi xel la ñu nit luñ bàyyi xel la ndax lu jëwriñ bàyyi xel la ñun dañ koy bàyyi xel rawatina jëwriñ li muy bàyyi xel na nga xamante ni sëriñ bi da koy bàyyi xel muy añi añi ajuma yi euh, bu ajuma yi alxam bu àllarba jotee euh, am nañ benn groupe boo xam ne euh, benn groupe whatsapp groupe orange boo xam ne ab Abdoulaye Diba moom lañ jox numéro boobu daayira yi féete Touba ak ak ak génn génn Touba yëpp bu jot dañuy dugal xéewal ci numéro boobu ñu demee ba kenn ayewu ko ñu jël ci xéewal googu togg ci lu ci des jëwrin jaayante sax si jëwrin yëpp jëwrin yi génne ko am nañ fi ay Baay Faal yuy màjjaal ndax am nañ fi ay Baay Faal yu ne ci daara yi jëwrin Xaadim Ndaw ci mel ni jëwrin Baay Karim Jonn mu ngi fi Bamba ay ñoom yuusu ñu ngi ci daara ji da leen di màjjaal chaque jour ngir liggéey bi am na jëwrin yoo xam ne ñuy ngi génn ba Touba te bu alxames jotee da leen di yónnee seen xéewal ngir barkeelu ajjuma yi dañu ciy dugal seen addiya ñoom it ngir di ci barkeelu ci loolu it jëwrin Xaadim ci gën a soññ ñoom it mu leen bàyyi xel bu baax ci loolu di ci amal mbégte bu baax a baax te jëwriñ xaandoo mi ngi wax sëriñ bi saa ne nag ma ñaanalal gaañ yi ba lii ñuy mébét ngir di ma ko liggéey ngir añi ajuma yi am ci lu kawe jot tey ci suba rek jëwriñ xaandoo fii la toog waxaat ci kaddu yu mel noonu daan nag wax naa ko sëriñ bi dinaa ko waxaat sëriñ bi ndax muy ñaanal gaañ yi ci añi ajuma yi ndax añi kat fanweeri junni togg ko fukki junni togg ko xaalis a koy togg te bu jëwriñ yëpp ñëwut jëwriñ xaandoo jëwriñ ñu nangu ndigal yëpp bu ñu toogee ñëwuñu jëwriñ Xaadim Ndaw togg ko waaye jëwriñ nag ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ ndax seen doxin rafet na lool te ñu ngi bàyyi xel liggéey bi waaye nag añi ajuma yi moom képp koo xamante ni waxuma la sax jëwriñ ci liggéey bi waaye nga bëgg koo togg sax boo ñëwee ñu jox la añ yi nga togg waaw waaw ubbil nañ ko lépp ubbil nañ ko ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi ak foo mën di rek tey gis tey dégg suñu suñuy suñuy kaddu ubbil nañ la bunt bii añi añi ñuy toggal Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou te sëriñ bi joxe ci ndigal ñu ànd kook sunu jëwrin Xaadim Ndaw jëwrin mi ngi wax ne ubbil na ñëpp ku bokk ci biir nangu ndigal ak ku ci bokk te bëgg a togg te bëgg feeñal sa bopp si ci liggéey bi jëwrin nee na na la buntu boobu añi da ngay jékki-jékki toog benn jëwrin woo la doo ko xam sax dañ lay boole moom rek day seetaan di yi xam ne lii liggéey Sëriñ Tuubaa la mu ne la bi sàngam damaa bëgg a togg añi moo ne ndab dabe nee na nit bu la rawee ci yoonu Serigne Touba nga bëgg koo dab wala nga bëgg koo romb del togg ay ñam di ko joxe daa ne maam Cheikh Rafal dana ndab dabe waaye ndab yi ndab roppi la kon loolu taw feex la kon ñum ñun sëñ bi ñu ko fay di ñaanal na képp koo xamante ni yaa ngi foo mën di ne ñu xam ne ajjuma yi du benn ajjuma rek dañ koy def ajjuma ju jot dañ koy def diir bi ko tàmbalee def léegi yàgg na te day gën a yokk rek ndax benn mbana dem ba jëwriñ xaalim ndaw léegi juróomi mbana la ñuy togg te jëwriñ fanweeri mbana la jëm ak ñun te ñun moom ba junniy mbana du pare nañ ndax ñun moom duñ def lu déglu ndigal te lii liggéeyu sëriñ Touba la waaye maa ngi waat Serigne Touba ne képp koo xamante ne feeñ nga ci dootoo nëbb ba faaw ndax lu sëriñ bi bàyyi xel la lu jëwriñ bàyyi xel la te lu Serigne bi bàyyi xel jëwriñ bàyyi na ko xel te li gën a neex nag mooy liggéey boo xam ne sëriñ bi da koo bàyyi xel waaye man xam naa ne képp koo xam ne feeñ nga ci moom moom moom raw nga fii raw nga fan jëm loolu Serigne bi nañu kon dañuy soñu ñëpp di soññu bépp membre ak képp koo xamante ni bëgg nga ko togg sunu jëwriñ mi ngi fi xaarim ndaw soo ko wooyee dana la wax ni ngay def ba togg ko añi ajuma yi te euh, ay jëwriñ yoo xam ne génn nañ ndax ku mel ni fàllu ma nga ba ñaari tali boo nekkee Dakar ba nga togg boo wooyee fàllu moom dana la wax ni ngay def ba ko togg fii ba ndar am nañ fa élément ma Malick Ba bu ndar mi ngi ndar ku féete foofu it boo ko wooyee dana la wax ni ngay def ni fi ngay jaar ba togg añi ajuma yi ba bitim réew ñu ngi koy waajal ñoom it nga xam ne kon adduna bépp ñoo koy waajal kon dañuy ñaan rek sunu jëwriñ yi nga xamante ni moo nekk ci keppaaru Cheikh Abdou Karim dinañ ci nàmbatal mu yàgg fi te ànd ak wér ban ànd moom ci liggéey bi ba am ci lu kawe sunu njort la ilaha illallah muhammadu rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله Haruna waaw Hey, hey.

Harun